lu may wax ni mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam da am loo xam ne te fii ci Kébémer ñun ñoo ko mën a xeexal suñu bopp tey jii boo xoolee Sénégal li ko wër ba ngay dem ci village yi gën a sori tey jii da ngay gis lenn li ñoom ñooy génnal seen bopp défendre seen bopp parce que dañuy défendre seen cité parce que citoyen nga te chaque citoyen da am droit nga défendre yow sa cité bi nga dëkk da am droit bi droit la moom sa yëf moom sa suuf taxaw fii nii tey boo doon wër jeunesse bi ñi fi am seen kër yu moomal seen bopp da nga koy wàññi kër goo dugg benn paa moo fa nekk benn maire ay jeunes ñoom ñoo nekk ci kër yi amul benn jeune booy yëpp samay jarbaat ak jarbaati jàmbur ci yam ci kenn koo xam ne te tey ji am nga kër goo moomal sa bopp te pourtant suuf si ñun ñoo ko moom fii ñun ñoo ko bokk da ngay am fooy wu mën a bokk ci suuf si wala nga nekk koo xam ne tey da nga nekk comme ak ñoom di def ay magu yu comme ñoom pour mën a jot ci suuf si cest à da ci am loo xam dama bëgg mu leer ci suñu bopp nit du sànni li mu moom man Cheikh Boubacar sam Cheikh na Cheikh Saad bu sama sëriñ laa la wax bu fekkoon ni tey aw ma kër fii nii man bu ma taxaw premier jour da ngay dagg jox ma parce que ñaanu ma la ko sama droit la yow yaa ko moom jeune nga boo ko si am 18 ans nekk ci commune bi da nga am droit ñu daggal la kër jox la nit du dëkk ci dëkk di fa jënd kër mais benn Boubacar sam mooy dem xeex xeex xeex ñun la ok jël 100 jeunes keneen. loolu du yoon li ngeen moom da ngeen di dem ngeen dem jën ko léegi nag bu fekkee ni da ngeen ñëw laaj li ngeen moom joxuñu leen ko ñun ñi nga xam ne tey ñun ñoo moom dëkk bi dañuy taxaw foqat ko am na nag yu fi am ay nit a ngi yor ay dix parcelles ñu yor ay feuille vierge ñëw taxaw wax ak yow remplir feuille bi fi la neexee nan lay jaay kër génne seen poche remplir feuille bi jox la jaxase nit ñi tey jii boo demoon tey jii nii nii nii nii nii Louga foofu nu jugé dinañ jugé doomu Kébémer lan la ñuy jugé parce que moo jaay kii kër jaay kii kër ku la jox kër ngeen ma maire bi ñoo ma ko jox nan la ma ko joxe ngeen ko feuille vierge la daf ko rempli jaay ma ko temps loolu fan la loolu amul fenn bu ñu defee nii nag li ñuy def day jàll noonu dañuy nax seen bopp Cheikh na Mouhamed Vadala la wax bii du jàll bu ne jàll na ci Kébémer mais bii du parce que suñ bakkan la ci teg sa suñ tànk tubéy dañ ko ciy xaar ñun ñoo moom dëkk bi ñun ñoo bokk dëkk bi léegi nag na moo nu mën a may lool mooy lii bu mu ko dagal il faut ñuy àndandoo bokk benn doole bu ñu waree xeex leen ni ñenn ñi nga xam ne tey mënuñoo jël dara taxaw ci ginnaaw lu ma ñu ñëw taxaw parce que gis nga dañ la wax ni la dëgg bu fekkee ni yow mënoo koo faj wax ko boo ko joxoñ ko boo ko mënut a joxoñ sax ragaju ko mais defal dara mais doo toog ni yodd boo dee yàlla daa koy laaj Seydina Mouhamed laa la day laaj sa dëkkuwaay xanaa xamu ni tey nga gis injustice war koo wax wala nga war koo faj ci sa dëkk ca defoo ko boo dee suñu borom laaj la ko comme ni mu lay laajee julli danga koy laaj keneen pour dul man kon nit lenn li danga koy xeex suñu borom dafa bëgg li lim la may nga koy teel sa bopp suñu borom bëggul nit boo xam ne da ngaa ñàkk fayda boo xam ne lépp dañ la koy def nga nangu ko. Kébé meer sël sël ngay gis gars yi di def lu leen neex te kenn du ko faj ay yenn jeunes yoo xam dañuy ñëw di rangé wu ci ginnaaw ñoo xam ne te pour lan genre hypocrite yooyu yow xanaa yow bëggoo sax suba nga nekk quelqu'un ci dëkk bi nga dëkk léegi pour être faut nga défendre sa jeunesse. mu rafet taxaw fi nga war a taxaw da nga fa war a taxaw ñun ragaluñ ci dara ñun ragaluñ suñu bakkan bi wàll ci pour Kébémer ragaluñ ci amul duñ ciy dëgg tamit parce que ñi ñuy jàkkaarloo dèjà sax duñ jàkkaarloo ñun parce que man sàcc du jàkkaarloo ma te sàcc tapet la Seydina Mouhamed la buñ jàkkaarloo man ak ñoom bi léegi wallaahi tallaahi laa la waatal bépp jàll na mais bii du jàll léegi nag il ñu taxaw il faut ñu gëm suñ bopp il faut ñu xam ne dëkk bi ñun ñoo ko bokk néew ma ñu ànd ak mais ñu ànd ak suñu bopp ànd ak dëkk bi man je m'en fous de ku mën a doon nga nekk politicien yi parce ñoom taxul man may wax mais li moom moom moo tax may wax vingt ans ngi nii ma koy wax di ko wax di ko wax te bu ñëpp demoon bàyyi ma dama koy continuer di ko wax ba korom may dee parce que ñun ñoo ko bokk ñoo ko moom lenn samay jarbaata ko moom yenn samay dooma ko moom ñenn ñun ñoo ko moom te man maa am droit défendre leen wasalaam dama tàng instant yi mun naa ko ne affaire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 sutura ak xéwal ak wér yaram voilà euh, di santaat yàlla bu baax aussi bi mu nu boolee ci jotaay bi ah, ñu nag yàlla dañu nattoo ñu bokk ci ñi nga xam ni euh, maanaam dañ naan du dugg ci politique du wax ci politique et jusqu'à présent on se dit que nous avons raison pourquoi parce que la manière dont on fait la politique au Sénégal la manière dont la politique à Kébémer vraiment c'est une à décrier ah moo tax nag bi ma sama grand frère bu Bouba waxee ma ni ko dinaa teew dinaa teew ngir jëmmam ji mais aussi dinaa teew ndax tur wi mu jël mu ni Kébémer gi ñu bëgg ah Kébémer nag buñ ko waxee ñun ci lañ bokk parce que fii lañ juddoo ni ko maam Mori waxe fii lañ màgge te fii leen ñaan yàlla ñu suul nu fi donc kon bu jafe-jafe ñëwee bu ay problème ñëwee dañu war a booloo xool lan moo baax ñu consolider ko lan moo bon ñu jéem ko fi jëlee wut leneen ak ah, problème yi nag moom li naan lu ni fàng kenn du ko jeex Kébémer moom xam naa ni li ma sama benn xarit waxoon ni ma sama maam fi ne dafa gumba mais boo ko wàccee woon garage yu Kébémer Je parce que depuis lors rien a changé et pourtant am nañ changé donc kon l'interpeller. doxul ku ne war nañ le interpeller nga joxe sa xalaat joxe sa ñu suñu ak suñu pour ko ah di ñaan rek Cheikh Bouba comme ko mouvement bi te mu doon bañ a nekk mouvement yi nga xam ni day judd tey dee tey li koy waral mooy lan du am objectif beneen bi mooy aussi nit ñi ku ne day yuuxu te du xam foo jëm donc kon ñu teg ko ci yoon euh, ànd ak yar ak teggin parce que nit ki li muy xeex mën na ko xeex te vraiment kenn du ko ŋàññi parce que nit ñi moom kenn moomu leen am na nooy jëfe wala nooy waxee rek bu boobaa dañ lay sikk te naam mën na nekk yaa yaa nekk ci dëkk combat bi nak pour ñepp la man à mon niveau je le dis souvent et je le dis haut et fort à chaque fois que je constate qu'il y a une injustice dina ko wax soit ñaari nit dañ koy dégg wala ñet nit mais dina ko wax mom euh dama ci xat sama tànk tubéy donc di len santat bu baax rek di gërëmaat bu baax di santat Cheikh Bouba ci initiative bi parce que comme on dit rek aduna ñaare fi am soit on est acteur ou bien on est spectateur

li tax fi ne nii man je me dis que ni sax euh, réussir na parce que da nga fiy gis tranche d'âge da nga fiy gis góor da nga fiy gis jigéen te ñi fi nekk rek ñoom ñooy voté ñi fi nekk rek ñoom ñooy euh, joxe seen xalaat ci ci réew. donc di leen ñaanaat rek ngeen bañ ko ngeen bañ ko foowee te ku fi jóge aussi nga dem ak engagement buñ la soxlaa nga ñëw bu dee information nga xam ko ba bu ëllëgee buñ la laajee nga xam looy toll. donc di santat yalla bu baax rek di leen wat ci kaddu yi te di ñaan yalla yalla def sutura merci beaucoup. ci assemblée générale bi nga xamni mom moko wote euh woote. Eh. xamna ni tay sax sama sama objet wax dina nek ci ci ñaari point point bu ñëk bi moy lan ma ci réunion bi kan signifier et puis mu invité ma ci réunion ma lan parce que jamono dafa tollu dafa am ñuy dox ci ay sentiment am tamit dañuy dox ci conviction Cheikh Boubacar Samb dama de très bas âge nous avons des lu politiques. ci politique ñu ànd taxawal des ci ay position yu jamono joju ñu accès des jeunes aux instances de prise de décision ...qui lu bess la woon slogan la woon ko sax wul ñi ni ay ndaw war na no ci suuf kaw am fa ay poste de responsabilité doxal ko loolu ñu ko gëmoon bëriwul politique bi dafa tolloon foo xam ne dañ doon wax ni ndaw ñi yéen a mën a taf ay affiche ñu woonu ñu dem taf ay affiche ndaw ñi yéen a mën a sànni xeer bu sànni xeer jotee ñu woonu ñu dem sànni ay xeer ndaw ñi yéen a mën a tas meeting yi ñu dem tas meeting yi ñun leen waa léegi bu falu jotee nag ñan ñoo war a falu léegi bu jël ndogal décision jotee ñan ñooy jël ay décision après tout ce qui se fait pour moi et sans moi se fait contre moi L'unique nit gi di def jëmale ko je man te bokkuma ci ñi Je jëlal dogal Je Je pour Je pour contre pendant longtemps problème pour faire face depuis 2009 lañ un engagement ci mouvement Wa Kébé man ma ni man mbiru Kébémer du question parti politique du question leader politique Mon choix ci ku may àndal ci wàllu politique ci Kébémer ñaari mbir yi ce lay c'est. muy confiance ak espoir confiance ndax lan kin war a jiital kan lan war a jiital mooy am ci moom yaakaar loolu mooy espoir am yaakaar ni diw mii kët buñ ko jiitalee ci dëkk bi dina ànd ak waa dëkk bi ngir dëkk bi soppeeku diw mii am na ay capacité pour jële dëkk bi fii mu nekk yóbbu ko fële foofu mooy espoir confiance bi nag mooy est-ce que diw ko falee bu jël alalu dëkk bi wala li dëkk bi am def ko ci poosam wala def ko ci ay ñoñom loolu mooy yëg-yëg bi nga xamante si nii moom lan war a am ñun diggante ki nu war a suivre Cheikh Boubacar Samb woote assemblée générale ñi day teg mouvement tudde ko Kébémer bi nu bëgg Kébémer bi nu bëgg nag fii ñi fi wax ñëpp daanaka wax nañ Kébémer bi nu bëgg intervention yi ma fi dégg yëpp wax nañ Kébémer bi nu bëgg mais léegi lan moo des nan la ñuy fexe ba Kébémer bi nu bëgg ñu am ko loolu lii ci la bokk def ay mobilisation def ay réunion def ay assemblée générale def ay télébat ndax ci ay élection la ñu jëm ci ay élection la mu jëm loolu moo waral coow li mouvement bi Cheikh Bouba nee na c'est un mouvement politique nee na tamit mouvement bi nekkul ci ginnaaw benn leader politique mouvement bi néewul ma sàmbalay àndal wala ma dembalay àndal kan la mouvement bi di andal moy ki nga xamné moy incarner sunu vision sunu ay valeur Kébémer bi ñu bëgg day nekk turbine pour képp koo xam ne da nga bëgg a jiite Kébémer en tant que maire pour képp koo xam ne da nga bëgg a nekk conseil municipal wala conseil départemental pour képp koo xam ne sax da nga bëgg a nekk conseil de quartier Kébémer bi ñu bëgg day nekk turbine boo xam ne dañ fay toog di waxtaan di nasandoo di nocceendoo jigéen ñi di wax seeni xalaat góor ñi di wax seeni xalaat mag ñi di wax seeni xalaat ndaw ñi di wax seeni xalaat comme nag ci ay wote lañu ñu jëm liy changer affaire yi mooy carte wote ku am 18 ans demal nga dem bindu ji ci liste yi ut kart électeur mën a jëlal sa bopp sa ay responsabilité mbir mi foofu lan toll nekkatuñ ci man damay ànd ak ma Samba wala ma Demba di doxatuñ ci ay santiment ci ngëm-ngëm la ñuy dox

continuer leen di mobiliser wu continuer leen di waxtaan ngeen nekk ay élèves ay étudiants ak foo leen mënti nekk waxtaane leen dëkk bi ne leen seen dëkk doon lu leen sox seen dëkk na doon lu leen intéressé engagement détermination loolu mooy def un vrai changement et c'est possible Kébémer li mu fiy dund ñun ñëpp xam nañ ko xam na kay lan moo fi des nan lañ koy soppee

lolu lu mooy Kébémer bi nu bëgg ñi ngi remercier ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp discours bi xawna na gudd trop mais il fallait ma jël temps bi pour expliquer ko lépp ndaxte ñun yàgg nañ xeex ci politique. diriger nañ fi UJTL recevoir nañ fi le candidat Abdoulaye Wade on a eu à participer à beaucoup d'élections ici au niveau de Kébémer que ce soit sur, les élections locales ou bien les élections départementales. Donc du coup, du coup, ce que nous voulons tout simplement, c'est la mobilisation de tous les Kéromérois autour de l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi C'est le changement. Le changement se fait par des actes. Et l'acte qui consacre la victoire, c'est le vote. Mobilisons-nous, continuons à se mobiliser. L'essentiel, c'est Kébémer. Kébémer rek moo war a doon li nga xam ne moom moo ñu soxal Cheikh Bouba une fois de plus maa ngi lay remercier bu baax a baax euh, am na loo xam ne ci politique def nga ko ci lu bëree bëree bëri bëri ñu ànd ko dox ko man boo ma waxee ne ma Kébémer jaral na la wala Kébémer danga ko bëgg man xam naa bu baax a baax lay sacrifices yi ngay def pour doomu aadama yi loolu bu ma ko waxee dëgg la parce que aussi dama xam ki may waxal xam li may wax te fii tamit kenn du weddi man bu ma waxee ci Cheikh Boubacar Samb du ma ci wax lu bëri sax mais xam naa ni nit ku baax la nit ku am courage la nit ku am jom la et puis toute façon moom xam na sama diggante ak moom loolu yeneen i affaire la mais day jaadu nit boo leen seqee yéen nii bu wootee mbooloo teew nga seede loolu ci kanamu mbooloo mi sama mag la sama xarit la te yàlla aussi moo nu boole kon donc yal na yàlla yeggale lépp li ngay def ci baraka Seydina Mohamed alayhi salaam jërëjëf Cheikh yal na yàlla sottal lépp waaw ak sër yi wax dëgg yàlla mouvement bi dañ cee kontaan trop parce que man dama doon politique mais dama newoon Cheikh Bouba ni banaa politique mais ba mu ñëwee ci man di waxtaan man ci mouvement bi dama ne ko man sawar naa ànd ci loo xam ne day defal Kébémer parce que ñun jeunesse bi ñun danoo nelaw ñu topp ay ñoo xam ne seen bopp rek lañ fi nekkal loolu lañ loolu dañ cee dëkk si dëkk bi juddoo fi yaroo fi màggee fi te yaakaar naa tamit fi lañ ñaan yàlla faatu aussi tamit ñu rob ñu ba tax ni kon donc ñun il est temps que ñu jug jël li nga xam ne ñoo ko moom ñu jël ko téye ko suñu loxo. Kébémer suñu xoolee Kébémer i tax mënul développé ak ñu jeunesse lan moo tax mun ñëw bokk si Kébémer parce que instant de décision yi ñu jël yëpp amul ay jeunes ay paa fa nekk ak ay mère donc nag il est temps que ñu jeunesse bi ñu jël ko en charge jël li moom jëlu ko suñu bopp kenn duñu ko jox li nga moom soo ko jëlee jiwul kenn du la ko jox man ak li may ñaan muy ñun ñëpp ñu booloo bokk ndey bokk baay. bok nday bok bay, def ben say baña tas def ben say ñun ñep suñ ko defé yakarna amna am lepp lu bëgg si dëkk bi nañ ko def ndax dëkk bi ñu ñoko mom ñu ñoko bok ñi def ay wàllu yalla ñu kon do kenn duñu ko defal lu ñun ñi nga xamni ñoo mom dëkk bi loolu nag pour ñu am ko bolo képp ñu ko mëna may ñun jeunesse bi nak suñ taxawul kenn mu taxawal ndax pay mu ñoo taxaw mère mu ñoo taxaw kon donc intérêt mère pour ñu défendre ko jeunesse donc mëna défendre te defa pour pour pour jeunesse bi nag mën ko defaan faaw jeunesse bépp booloo te xàccandoo ci dóorandoo man loolu dong laa leen sant bu ñun ñëpp ñu bokkandoo te xàccandoo di dóorandoo defandoo benn say suñ ko defee lépp lu mu bëgg si Kébémer nañ ko am mais suñ tasaaroo nag politiciens yi nañuy def lu ñuy def ñëw nax ñu dem toog si nguur maire bi suñu jox ay ñaar téeméer ak ñeent fukk tout simplement mais développement Kébémer intéressé wu leen ñoru leen parce que ñoom ñëpp kenn ku si nekk am na li nga war a am sa njaboot am na li mu war a am ñun ñëw amul dara ñun amuñu fi mu dëkk amuñu ñun ñëpp kenn ku si nekk sa kër mag nga dëkk wala sa kër papa te loolu dafa war a jeex ndax fu ñu ku si amul kër instant bi ne keme mais jeex na ba pare jeex na ndax fii ba njabi joxe nañ ko fii ba gàdd keme joxe nañ ko kon donc li des as néew murik li nga xam te moom moo si des ñu narkaat caxat caxatee ñu taxaw lànk bañ ko loolu nag pour mu am na benn say doog la mën a def nag loolu maa ngi leen si woo yéen ñëpp yéen jeunesse bi soxla nañ leen si loolu bu baax a baax ñu bokk ndey bokk and def ben say pour Kébémer bi nu bëgg ndax mouvement bi ni nga ko tuddee donc wuy na turam Kébémer bi nu bëgg Kébémer bi nu bëgg nak tu benn Kébémer muy Kébémer émergent Kébémer bu jëm sa kanam Kébémer gu lèr Kébémer gu am sécurité Kébémer gu am ay tali ñun Kébémer googu lañ bëgg mais wax ni Kébémer gi nga xamanteni ne depuis li fi nekkoon démoné mom moom lay jàng ba tey moom ma fi nekk 2000 la ngay gis bu fi taxaw ci dërëb tali l'an 2000 boobu ñu bari fi juddoogul am na ñoom te judd nañ ba tey mosu ñëw gis fu ñuy defaree tali si commune bu président 12 ans pouvoir ñu am nekk fa nekk am ñu a ndax suñu président nga xam dëkk dëkk ma fa la fa Abdou def lu la neex ndax ñun ñun PDS laa man APR laa man nangam laa ñun ñoo jàppale Kébé te Kébé dafa war a jóge foofu Kébé dafa war a toll fu nga xam ñu jeunesse bi ñun ñooy def benn say xam lu ñu bëgg bokk benn vision ñun ñëpp suñ ko defee am naa yaakaar que Kébé képp ku fi mënta toog na fi toog ngir intérêt Kébé maire na fi toog ngir intérêt jeunesse bi soo xoolee jeunesse bi leen lan amoon si Kébé muy newetaan da ren sax newetaan du am ren sax newetaan du am ndax mairie bi tëj mais li fi nekk lépp dagg nañ ko jaay lépp te fi mu toll li des as tuut muy euh, euh, euh, kii ba course ba ak armée yi man yi damay man sax ñu boole si jaay waaw waaw ndax su xam nga xam nga max su bëgg suuf te ñun ñor ak ay max ñoo yem te suuf soo leen jox ñu yàqu ko jaay nañ dëkk bi rek li des mooy dem jaay ji course ba pare dem bàq ya jaayi ji ko te loolu nag ñun nag soo ñu jël see taxaw pour defaan loolu suñ ko taxaw nag wallaahi nit na xool nan da ba dootuñu amate fi ñuy robee xam su ma nee bàq bàqee exemple la mooy bàqee fees na ba pare bàq bàqee fees na ba pare mooy armée sax amu fi te dëkk bi jeex na te xam ngeen armée mooy numéro un sooy tabax kër armée nga war a njëkk a tabax mais daa jeex tàq fi mu toll place amatul ba li si nii li fi desoon as néew ñi am doole dem nañ ko tabax ko ay ngandi tabax pour wàcce ko seen bopp mooy yéen ñi si des soo leen deewee sax tun am fu leen rob te foofu lañ jëm ci Kébémer mooy nit na fi faatu sax tun am fu la rob nekkee bàq jeex na si des jël nañ ko Ablaye Wade tabaxal na boppam ñi des tabaxal seen bopp tabax seen i waajur ñi yéen ñi amul nag moom toolu sa am sax foo leen tëdd kon donc loolu il est ñu xeex ko pour mu jeex injustice bi nekk si Kébémer ñun ñëpp ko gisandoo nag ñun ñëpp si am part de responsabilité suñu tëggee tamit nelaw ba loolu rombaa ñu tamit suñuy responsabilité lay ñu ñëw fi dëkk ñëw fi juddoo ñoo fi yaroo man nag maa ngi leen wooyee jeunesse bi yëpp ñu def benn say bokk ndey bokk bàyyi xeex jëlee li fi nekk jaa ngeen jëf billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani ngi nuyu ku ci sa ak ci sa di sama jigéenu bopp muy Aji Maguette Mbaye moom fu ma ko dama koy jox wàcc waayam parce que yàlla suñu borom moo ñu boole ba may bu tuuti nekk tuut tànk ba léegi nii ba may ni gënal ay bëtam kon maa ngi koy nuyu di ko bëral di nuyu Cheikh mi nga si moo waral jataay bi di nuyu sama frère yi ma fek gis na fi sama sœur ak xalé yi nga xamni sama samay sama dom di nuyu sama frère Mama mbay mom sama frère de sang ma ngi koy nuyu bu baax di ko jox wayam fi may commencer nak moy euh, fi gaay yi daaneele mooy gëm sa bop da yaakar na nit ki bala nga mëna taxawal dara da ngay gëm sa bop ba paré gëm yalla te gëm sa bop gëm yalla moo indi mais nit bu fekkee da nga yaakar ci posam dara koku mëno jakarlo ak di ko wax deug wala munoo ak mom nan ko dama la contre wala boko ko waxe tam ci mbedd mi la mais bis bo len wété saalam nga ni ko yow la faram te loolu ak nafiq la te nit bo jubee gëm yalla waxna ko Cheikh Bo mi ëllëg lepp lo yóotu sun borom man na la kaa jox. alaykum damay jël exemple manam nit ku ne sa bop la gëna ñep ci sama bop dama nan man bama juddo ba légui duma talal loxo sama nit nit sama loxo kuma xam ci dunde sama ñax nga ma xam ak daan sama doole lu waral lolu parce que dama bëgg kuma ma jàkkaarloo la tête à tête face à face fuma neex mom sama bop fuma neex dem fii ma ñëw nii neex amul kenn kuy tax ma wàññiku duma wuy Cheikh Bouba ndax lo xamni dañ ko cheikh sama digënté ak yow di ci tek ni wax dëgg yalla man ba ma ñëwee Kébémer juddoo fi genn dem ñëwaat ba légui lenn rek la fi gis toujours rek ñenn ñi la ñuy ràccal ñuy lekk Cheikh Mbow mii bi ñu toogee dama ni ko pourquoi pas yow nga mën ngaa nekk maire dëkk bi maire maire du dara parce que yow ku xool ni ngay waxee lox wax bay lox xam ni yow wax dëgg yàlla nit ku gore nga te nit bu gorewul mënta jiite dara nit bu gorewul mënta jiite dara li ma bëgg rek mooy lenn kese ni nu amee ngor ak fulla ak fayda ba wuy si Cheikh Bouba te li mu wuy si wootee wax dëgg fa yàlla ñi nu wër di suñuy maam ak suñuy bàyyi wër ñu ñoo ko waroon njëkk a woote mooy euh, sàmm suufas dëkk bi ba suñu doom yi ak suñu rakk yi bu màggee mën a am fun dëkk waaye suufas dëkk bi kenn mënatu koo sàmm ndax naam jeex na sax waaye nag xale yi nga xam ni si ñoo toog du ñuy xale sax ndax bu ëllëgee ñun nii ñu toogee di wax ñu ni déglu ñoom noonu la ñaane yàlla ëllëg yor réew mi ñoom dina wax rek ni Cheikh Bouba sànq àll la waxee waaye góorlu na ak ay propre moyens sax wax dëgg yàlla moom laay wax sax ba formé ay groupe yoo xam ne si ñu ngi am defar ay carte wala ku amul kayitu juddu wala ku bëgg carte d'identité wala nga war a inscrire soo ko gisee dina la teg ci yoon wu leer nga am ko am anam yu sedd yu jige yoo xam ne si bu ëllëgee di nga mën a xeexal li nga xam ne si moom nga bëgg a xeex li nga bëgg a xeex nag mënoo koo xeex te amoo carte électeur amoo carte d'identité di ci teg rek ni ñu ngi jéglu kàddu yi mi ngi bëgg a gudd waaye di daaneel rek ni ñu gëm gën a gëm suñu bopp te xam ni fii nu ñëw nii waaw boo xoolee daanaka ñu fi nekk ñëpp ñu ma fi gis suñuy mbokk la benn askan la te maanaam buñ ko xoolee ci histoire sax dem ba ca maam ya mooy askan wi nga xam ni buñ naan l'islam sax bokk nañ ci askan wi ko fonde parce que danoo yàgg a xeex waaye yàgg xeex gi suñu yàggee xeex duñu yàgg a du duñu jël dara mën na noo xeexal nit ba mu toog nag mais danoo war a jël dara nag parce que mérité nañ ko pourquoi pas ñu jàppale Cheikh Bouba mu jël meeru dëkk bu jëloon meeru dëkk bi Lamine Thiam jël ñu xool ko damay jàpp Touba mais pourquoi bis bu nekk bu ñu wootee Lamine Thiam woote kenn ñu war leen a tàcc war leen a way war leen a tëggal pour lan gënul nday gënul nu bàyyi da ngay gëm sa bopp donc may ñaan rek ñun ñëpp nu jàpp ci wax dëgg fa yàlla man dama damaa ñëw parce que ben parti politique taxul ma ñëw fi nak li tax ma ñëw aussi moy dafa ni mouvement bi kenn moomu ko ñun ñoko mom parce que dañuy kébé Kébémer té loolu ñun ñëpp la war Kébémer nak man def na fi jàngat parce que xawna fi yag yàgg li yaq dëkk bi moy PDS APR fi la bokk fé fé fi looloo yaq dëkk bi kenn du xol intérêt sa dom fu mu da ngay jur doom yu bëri boo say dom torox parce que sa noo amee woon dépense rek ngay wut sa est pas la vie nit ki dangay ngay créer pour ëllëg sa njaboot bu màggee mën a am fu teg seen tànk te li la koy may mooy muñ muñ musu bee di xeeñ pour ëllëg sa njaboot bu màggee jariñoo ko mag ñu baax ñu fi nekkoon ñëpp danoo muñ lem gi seeni doom tey ñooy lekk lem gi mais boo lekkee lu neex lekk say doom bu màggee dañuy sonn rek waaw kon ñu santaat yàlla bu baax di gërëm ñëpp ñun fi fekk di ñaan rek ja daje bi ñu koy gën di jegeel di gërëm sama frère Daba ak Mamadou Sène ak ñi fi jot a wax ñëpp wax ji rafet na lii dara fayu ko ndax woote rek nit ñëpp ñëw dafa neex waaw di santaat bu baax di jégalu bu baax ci kàddu yi fekkee wax ji am na kum ci touché dara lu ko xaw a dérangé ñu ngi jégalu te xam ne nit matul wasalaam. maa ngi lay nuyu yéen ñëpp man nag man la man la Isma Sylla kon euh, tey maa ngi kontaan aussi invitation bi comme ñëpp ñu ko waxee rek dama ni woon sax du ma wax si kanam caméra parce que on m'avait pas averti waxuñu ma woon ni lii la mais comme que yoon te li nag li ñu fi yëpp xam nañ ko mooy le problème de Kébémer dëkku Kébémer problème am problème nag pour nga jëlee ko fi da xam lan moo ko fi indi mooy la source de ce problème te ëmpalewul kenn ci ñun ñi que le problème actuel de Kébémer fi mu jóge mooy celui qui est là wala l'équipe municipale qui est là depuis 12 ans fukki at ak ñaar léegi nag ki ñu teg problème boobu juyuf ba tey te day laajaat am na déjà 12 ans bu laajaatee 5 ans lay laaj maanaam juróomi at buñ ko doolee juróomi at mooy jox na ko fukki at ak juróom-ñaar te fukki ak juróom-ñaar leer nañ ñun Kébémer du si développé kon kon une solution jar nañu solution quoi ndaka ñu solution mooy kooku

ñu am sax armère waaye duñ ci am mais ñu am sax lycée bu bees malheureusement dootuñu am école primaire bu bees malheureusement ñu am stade bu bees malheureusement dama ko à chaque fois ko bind ma ne même tey bu ñu doon ba Kébémer di am di am 100 élèves par classe dañ koy am parce que amatuñ classe yu bees amatuñ suuf suñ tabaxee école yu bees waaye aussi bu ñu demoon tey ba am 100 AIC nañu leer ni ci benn stade la ñuy compétir mais ci benn terrain stade boobu benn terrain bi la ñuy compétir tey tey tey problème bi am ñu ñëpp mooy amul AIC benn AIC boo xam nga sa terrain boobu terrain boo xam ne c'est viabilisé ñu mbëkk nga am ay kayit amul. kon ça veut dire que amatul sax di créer ay AIC yu bees parce que du am fu entraîner déjà léegi problème bi du foofu donc man à chaque fois dama koy wax ma ni lan moo tax tey Kébémer benn groupe bu restreint cinq wala dix personnes wala vingt personnes bëgg ko séddoo def ko lu leen neex tey ñu bari fii amuñu terrain. mais tay deuk bi amna na ñoo xam dañuy jaay ay lot de terrain tout simplement parce que ñom ils sont dans la mairie ta poste ban fa am poste de conseil la muy un poste de bénévolat bo xamni amul sax salaire tay da ngay seetlu ñom li ñu njëkkante moy ku gëna rafet le cœur ci ko amul salaire fa lañu jëlee xaalis boobu tay malheureusement dama koy wax à chaque fois mané ne Kébémer tay bu nekké tay tay tay amna na benn nit bo xamni ne benn nit mon mon mon le un quart des terrains de Kébémer Manam terrain yi fi ne am na mon mon mon lui seul kan mon jox terrain yi fan la ko lu ci bari ci loolu mairie moko jox parce que maire daf koy amel di ko jox ak xalé yo xamni ragal na sax waxaar ak mom. lu leen jox ni leen jaay ko tay su bëggul nga dëkk parce que da jaay terrain 10 millions mënoo dara

dama doon waxtaan ak benn grand taayam mu ni ma il paraît que armée yi armée yi bàqe yi am na ñoo xam doo ñoo dagg fa ay parcelles pour seen futur néew maanaam ñu deewagul muy wax ma ni ko xam nga lu tax loolu ma man ko famille yooyu dañ ko yàgg def kenn dagg lu leen neex def lu leen neex kenn waxul loolu moo continuer tey te fekk jeunesse bi taxawun tey duma wax woo jeunesse am na jeunesse boo xam ne moom seen yoon nekkul ci Kébémer mais dama bëgg même bu amee une infime partie boo xam ne bëgg na dara ci Kébémer ñu xam ne la la suñu problème mooy l'équipe municipale en place te bu ñu ko fi jëlewul dañuy gën a jooy rek parce que da ngay gis ni jeunes yi ànd ak ñoom ñëpp pour intérêt dëkk bi mais te dañ ko def pour seen propre intérêt te aussi may may waat ñëpp ni surtout il faut il faudra qu'il y ait au moins une une production intellectuelle ma koy wax grand yi ko xaw a jàng tuuti ngir yàlla bu ko yema rek ci wax mais on a on a des réseaux sociaux on a au moins Facebook.

te aussi nan bàyyi xel dama koy à chaque fois dama bind woon ma ni que celui qui n'a pas le courage et l'autorité de de parler des problèmes de Kébémer se sur les problèmes du pays mooy képp koo xam ne mën a wax ci problème Kébémer noppil ci problème mu Sénégal parce que damay jàpp ne kenn ku ne boo réglé sa problème mu dëkk Sénégal dootul am problème déjà man loolu laa gëm te aussi critiquer benn Macky Sall boo xam ne xamoo ko xamoo papaam xamoo papa yaayam xamoo maamam xamula mosoo leen gisee dafa yomb li gën a jafe mooy ki nga bokkal dëkk mu jiite ëpp la ndombal tànk ëpp la baat am fi mbokk am fi papa am fi yaay am fi rakk am fi jarbaat kooku boo ko waxee dëgg loolu mooy le courage Macky Macky Sall na moo nekk ci kaw mais xamula boo ko doon saagatu du la xam mais ki nekk ci dëkk bi tey di fi def lu ko neex boo xut ak moom nga room ko fi dem di wax Macky Sall man damay foog ni leneen la ñi ngi wax ndengleer ñi ngi wax feneen mais le problème qu'il a à Kébémer c'est c'est pire gis kenn benn conseil boo xam ne boo ko woowee naa la il faut ñu xaar commission d' attribution des terrains il faut nga xaar ñu daje pour may la terrain te ñooñu chaque jour dañuy ay lot de terrain gënuñ ñu fee bokk amul lu ñu fi gën la gënuñ ñoo nekk Kébémer waa kon lu tax loolu war a continuer loolu du ay saaga koy dindi du ay yuuxoo koy dindi du tëgg koy dindi du fecc koy dindi mais dem voté di jële ko fi moom moo koy dindi te chacun en a le droit c' est un pour tout le loolu nañ ci bàyyi xel baax kon mooy waat jeunesse bi yëpp naan leen nañ passé fecc nañ passé woy nañ passé reetaan mais nañ ci def fulaak fay na doon farata bu bindu jotee nañ dem bindu ci liste yi ñëw voté ko fi dindi ko fi parce que nag mënoo dénk nit dëkk bu ndaw bu toll ni Kébémer nga xam borom xaalis sax bu amee yére jële ko fi dina fi problème bi yow nga ñëw yor Kébémer pendant 12 ans te bu élection ñëwee nga dem ni ñu ah man la fi Ablaye Wade teg waaye bu ngeen votalee Ablaye Wade dina kontaan loolu du alibi dama gis nga maire sortant li wara nek, li mu campagne moy un bilan un bilan satisfaisant mais ñu dëggate chaque jour ba élection jotté nga ñu Ablaye Wade bien qu'on le respecte bien qu'on l'aime que bëgg na Ablaye Wade mais aussi Ablaye Wade li gën ci ñun la ñuy diggal ñuy damay wax ni dëgg à chaque fois ni Ablaye Wade li gën ci ñun mu du à chaque fois daf trouver ci part dem tay 12 ans yi passé xam na ni c'est un échec total pour Kébémer Kébémer n'en a pas bénéficié tay amuñu dara dara dara dara. te à chaque fois dama koy jooy ma ne ndeysaan suñ suñ njiit yi xamuñu ni léegi ay commune rek ñooñu wër xamuñu ni colom commune la xamuñu ni ndànd commune la xamuñu ni euh, euh, jokkul commune la ndànd commune la ndeysaan te commune yooyu dañuy xëccu ñun leen teg ba dañuy xëccoog ñun te dinañu raw ci kanam tuuti bientôt on sera ce qu'on appelle un faux chef-lieu de département maanaam ñun ñooy doon chef-lieu de département mais duñ am dara duñ gën a populaire duñ gën a infrastructure duñ a am dara Kébémer tey dina boo xam ne da ko il nous faut un maire qui sera qui sera négocier des terres manam maire bo xam day dem ñaan souf ci ñaan lan tol faaw ñu ñaan fekke maire mënul ñaan ça veut dire que dootu dem entreprise bees kon Kébémer chômage du fi jeex mukk moy sun jeunes à chaque fois mënu ñoo liggéey bir Kébémer dañuy génn wuti liggéey fenen mënul ñak lool du fi jeex parce que amatuñ souf buñ tabaxé une grande entreprise alors que ndaad mën na ko parce que amna souf suuf man nako parce que amna souf jokul man nako parce que amna souf suuf man nako parce que amna souf suuf te ñu ñoon ñoo djégé fi mais une mauvaise gestion moo tax ñoom ñu a ñu loolu te incha allah buñ ci jugul na kenn ku ne xam ni boo boo boo ko dul farata lu si maanaam ëllëg bu la sa doom laajee di nga rus man tamit damay bind di wax ëllëg même su ma dee bu sama doom juddoo bu nee sa papa nee sa bindoon na wax na def ci mënul dara maa ngi leen nuyu yéen ñëpp jaajëf a prouver que ne na te yeewu gi ñun dañoo dépassé fu ñuy cancel ay Ndingler ay Kébé Dakar feneen maam fi mu dëkk nii nii lan war a defar ba pare ndax bu kenn ku nekk gérer sa localité ba mu baax Sénégal fenn du te jamono jii nii li koy defar mi ngi fi bu dee xam bi jàpp naa ne ñi taxaw nii ñëpp gars ñoo nekk li léegi rek moo des jamono jii lenn muy engagement ak détermination dañoo bëgg nag ngeen engagé wu am déet maam jamono joo si fu leen woowee ngeen ñëw. parce que ñu mu yam ben mouvement avancé yi tour lay am rek commencé ñaari fan ñetti fan ñu né ah pourtant dé doon nañ fi jéem a créer benn mouvement mais fo bëggu ñu lool dañu bëgg ba xam si ni fu leen woowee matin midi soir ngeen juk and ak ñun parce que ñun bo gisé ñuy xex ñun dañu xam ci ben ben ben ki bo xam si ñun ay artiste lañ malgré man duma ma rappeur sax mais xam nga ñun dañu dañu nekk dañoo jox rôle bo xam ne si ni dañuy dañoo nekk ci ben mo ki bo xam si ñun dañu ay rappeur lañ ay artiste te kenn ku nekk xam nga ne rab day défendre parce que tey gis nañ exemple bi passé bi coow li jàppee bi fekk artiste yëpp rappeur yi gis ñu génn may woo tamit sama booy rappeur yi nga xam si ñoom ñoo nekk ci Kébémer muy xale yi mag muy mag ni ñu ñëw intégré ci mouvement bi te xam ne lii seen njariñ la lii du njariñu Boubacar du njariñu Isma du sama njariñ parce que ñun su buñ suñu intérêt dong taxoon a jug dañuy laxatu suñu loxo def ko fa mais dañoo ñëw def ko fii nii woo ñëpp ñu ñëw bokk ko ak ñoom kon léegi li des mooy ñu engagé wu am détermination boo xam chaque moment chaque instant gis te fun xeexee di ngeen xam ne na gis nga lu kenn man nag ñaara ko daax te jàpp naa ne buñ booloo l'union fait la force kon jot nañu booloowaat xoolaat suñu bopp bu baax a baax parce que xale yi e toll nañ foo politik guyago sii nii danoo war a politique bu ba politique bu ba mooy lan da ngay nekk ci sa ruq di liggéey di gañe sa xaalis di fayeeku say bu nga ñëw def population yi ay ginaar xëpp leen dugub ñu ñëw lekk nga dem sa yoon mooy lan nga ñëw nax leen dig leen jox leen benn cinq mille benn dix mille après élection ñëw nga gàññi dem loolu amul sens amul sens la confiance nag sa gagne lorsque les promesses se tiennent ñun dañoo war a dépasser fu ñuy naxe dañoo war a dépasser di am ci confiance koo xam ne si ni douze ans chaque année dañuy nax loolu dafa war a jeex te jàpp naa ne li koy jeexal ñu ngi si yoon bi te incha allahu rabbi dinañ ci am ndam ak réussite le fait ñu mbooloo doon benn maa ngi jégalu nag ci kàddu yi di trop mais maa ngi bu baax a baax di leen woowaat ci engagement ak détermination ngir yàlla ñëw leen engagé wu déterminé wu ba fu ñu gis leen parce que mbooloo mooy doole jërëjëf. ñu yeewi ñëpp nag. mais bala ñoo yeewu ñëpp ñu xam ne rek am nañ benn concert bu ñuy tëgg samedi incha allahu rabbi fii ci terrain de gratuite booy rappeurs yi nekk ci KMR yëpp ñoo koy def mais sama doom asma mooy tëgg quoi 23 concert la yoo xam dañ ko war a def koñ bu nekk ñaar lan fa def mais loolu mënu nekk il faut da def benn benn benn ba wër quartier yëpp door a defaat quoi door a at mais nag day dafa nekk. Euh, pour ay ay ay ay ay ay ay ay dañ pour pour mobiliser la jeunesse pour parce que sensibiliser la jeunesse pour ñu xam dañ war bindu bi ñi problème pièce d'identité il fallait que këyit boo amul mënoo ko wutal sa bopp nga ñëw ci ñi la mën a nga ne man kat sa bopp wala léegi nag ñun am nañ benn groupe boo xamante am nañ benn moyen boo xamante dinañ ko lijjanti nañ ko féete na ko pour loolu kese képp koo xam ne nga am problème mu papier wala nga war a dem bind ca bindoo demal nga bind ci boo amee problème mu pièce na ñëw nga wax ko biir mouvement bi dina am ay numéro téléphone yoo xam ne gars yi ko lancé dinañ def benn groupe WhatsApp ba ñun ñëpp dinañ xamante ñu ngi nag gërëm ñëpp ñi fi teew ñu ngi gis ñëpp di gërëm borom kër gi di ko ñaanal muy sama frère Diadiat. ki fi nekk sax moom mën naa ko jox parce que sama jabar la mais jaaje moom mënuma ko bañ a nuyu certes man ak moom ay wujjulam sax mais amul problème ñu nuyu ñëpp di gërëm aji taxawaay bi rafet na moom duñ ko jàppe jabar mais yaay lañ koy jàppee parce que daf ñuy tepp fii lu bare bare ña nga sa présence rafet na franchement parler parce que amul lenn loo xam ne te dugg nañ ko muy affaire jeune te gisoo ña nga jàng mu ñëw taxaw ci kanam et puis dina ci gën a neex mooy moyen bi nga xamante ne daf koy yëkkati daan la xam naa ni parce que loolu xel la man gën xam naa ni il faut ma jàpp ci pour ngeen def lii jigéen la bu ko neexoon du def dara mais ñu ngi koy gërëm ci yooyu yëpp di gërëm liikat di gërëm fan si club Dabo yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar seen taxawaay rafet na yéen moom mënu ma leen a fay parce que samay doon ngeen quoi merci beaucoup pour ñëpp yéen ak moom sama frère la di gërëm ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci ginnaaw yom kafe gi suma frère Dabakh moom suma professeur la moom daanaka lu ci bari moom buñ ko ñemee sax moom la parce que ñun ñëpp ku ci ne xam na lu bopp bët xam na lu bopp attan donte buñ dee xeex yenn combat di ci rey bopp sax da am ñoo xam ne tey tey buñ tolloon fenn fi yaakaar ci ñoom lan am yaakaar benn bi pour ñu véhiculer loolu parce que ku ci nekk rek xam nga fi nga mën a yem ci combat te ñun wu dara ci àdduna ñun bu buñ bëgg rek. buñ gis rek bëgg nañ la taxawal ci kanam ñeent ci jàpp am nañ confiance ci yow moom frère ñu leen di ziar Mame Bamba maa ngi lay ziar baax Xaadim Kebe sama xarit sama frère nekk jeune nekk ci koñ bi di jàpp ci lu bare bare bare bare ci jeunesse bi ñu am benn tournoi football boo xam ne te moom moom moo ko géré moom mooy def lépp moom képp koo xam ne te da nga équipe nawetaan bëgg a bokk ci tournoi boobu noonu moom moo ko yor dañ def ba am nañ 10 ballon yoo xam ne dina ko war a mën a may équipe yi ak ay moyens am nañ tam ay enveloppe yu xaw a tane yoo xamante ñun ñoo ko taqale ci suñ biir ak suñ ay jigéen pour rek ma wax leen ci loolu na mouvement bi jëm day maintenant waaw ak trois jeeg yi jërëjëf sama grand mu Thiam Ndiaye moom moom daanaka dama koy wax ni daanaka sax lenn li sànq dama nekk di sol yëre ba caag ma ne ndekete mag dafa baax ci ci ay xale. parce que da ci am yoo xam ne dangay ngay toog gedd ko sax mu taxaw xool ma waroon moom mu waroon def nii mu ne noonu ki ñuy ay booy lan man maa mën a defar lii def te yàlla tax merci beaucoup ñu gërëm ñëpp maa ngi gis ñëpp di gërëm suma copain Thier parce que dafa jóge Fuuta et puis moom quartier la ñëw taxawal. parce que tey jii bu ko neexoon waa manko ñëpp ñëw dani ma même dinaa gérer lépp Cheikh Boubacar Sam moo tax ñu ne ko woon concert yi ñuy yëkkati de bis bu ñu ko yëkkatee bi ñu njëkk a indi bu ñu jugee ngéwal yow lañ koy may incha allahu rabbi di gërëm Isma di gërëm booy Mara Dieng yow du ma la gërëm parce que ñoo bokk affaire yi Mamadou Sen nag moom du ma wax dara parce que maa ngi moom benn nit lañ ko wax kenn gërëm sa bopp merci beaucoup ñin tudd ak ñin tuddul ñëpp ñu leen kii ndayoo Sam kenn du gërëm sa rak Fatmata Dieng yow sama jàmm nga merci beaucoup pour tout kontaan naa mënuma lim ñëpp parce que ñii dafa ñoom dañoo bari mënuma merci merci merci